Guy Diop nekk directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants jéegi ñu gëjoon la gis lool te euh, je pense que yàgg nga quand même défendre régime bi tant yi mu tangé. woon qu'est-ce qui s'est passé maa ngi lay nuyu Néné Aïcha sama xarit yaa ma mën a génnee si sama Roko, <laughs> si je peux m'exprimer ainsi balaa may sore damay jaal Bougane mhm. Bougane Gueye Dany maa ngi lay jaal soxna moom mi di ko jaal waali di ko jaal surtout nag seen yaay ñàkk dafa metti mm-hmm. rawatina ñàkk soxna ñàkk ràkk ñàkk yaay ñàkk doom itam mm-hmm. kon moom yi fi mu jógee fi mu jëm yàlla ko gënal fi mu jógee mm-hmm. ah euh, damay kontaan boo ma laajee question boobu ndax na xar day weesu mbote. ah waaw. comment ça. mun ñuy nekk di xeex saa su ne. mun ñuy nekk di politique saa su ne. dama am man benn ligne de conduite. sama ligne de conduite moo doon lan. ñu respecté ki nga xamante ni cinquante huit pour cent des sénégalais ñoo ko fi teg muy le président Macky Sall. Mhm. ma am benn ligne de conduite boo xamante les institutions de mon pays nga xamanteni sangor ñew na dem Ablaye wad ñew dem Abdou Diouf ñew dem Macky Sall incha rabbi day ñew dem ces institutions là qui incarnent l'état nañu leen jox cër. man Aïcha lolo doon sama xex d'accord donc du du lolo taxone du amadu Ba bi ñu tànn moo tax nga raar plateau yi. déedéet am ah. ba ma wooyee ni ma Amadou Ba dañ ko jéegi kaay nga def émission dama ne la du ma waxagum ba sama président tànn. léegi nag sama président tànn na bu fekkee da nga am question boo ma ci laaj nga laaj. ma léegi euh, ci gouvernement bi kay la ñuy wax. naka nga gisee euh, aujourd'hui euh, gouvernement bi ñu teg pour Euh, ñu tuddee ko gouvernement de combat ñu jàpp parce que ñiko wax fi yépp so leen déggé bu baax jàpp nañ que euh, dañoo gouvernement peut-être wala directoire de campagne pour Amadou Ba mi dem campagne en 2024 bala may tonto directoire bi ak gouvernement ba pare damay rappeler le pouvoir discrétionnaire du président de la République et c'est constitutionnel du ku mu neex nga nekk président yalla dogal président Macky Sall mooy président yàllaa dugal constitution moo ko may muy tànn ku ko neex et président Macky Sall day tànn ku ko neex mu nekk ministre am mbóolu ko mu am une vision mu tracé ko ba pare jël ñoo ñu ni leen doxalal leen ma ko ma am ñaari yëf nag lu ma ci neex ak lu ma ci naqari ndax dama am habitude naan duma benn wii wii te nee na Aïcha yow xam nga ko ma am lu ma ci neex mooy lan dugg Thérèse fay <coughs> Thérèse Faye di jigéen bu mën góor di jigéen boo xamante maire la mu door nak ay goor ndax politique bi dañoo seetlu toujours góor ñi rek ñoo ci ëpp wax te bu mobilisation jotee jigéen ñi taxaw. waaw mais loolu tam sen président fernel nako parce que do sunu président wa mais ma touti da ma poser question bàyyi mama agalé parce que ci gouvernement bi également. wa bàyyi mama agalé dama ne dama am lu ma neex am lu ma naqari. jigéen ñi gis nañ ne que li ma neex moy Thérèse Faye duguna na. li ma neex moy biram fay amna lo xamanteni mengona ak limu mu doon moom. sama ministre nag ñu daal di koy reconduire at muy madame Fatou Diané Gueye di Sanaroise su ma waxee Sanaroise nag foog ma wax ci Victorine ma amaat nag lu ma ci naqari li ma ci naqari mooy 39 ministres ministre lañu am. ci 39 ministres yooyu bëggoon naa am 19 ministres yoo xam ne ay jigéen lay doon bëggoon naa président Macky Sall mi nga xamante ne bi mu gañee dafa ne gouvernement bi xale yi ñoo ko moom. ak jigéen ñi. Mm-hmm. dama doon xaar sama président Macky Sall bi muy def gouvernement bi mu tegal ma au moins dix neuf jigéen ndax nag am na ay jàmbaar yoo xamante ne duñu dellu ginnaaw saa sum leen wooyee ñu taxaw sama gis-gis ci gouvernement bi loolu la maintenant nag quant gouvernement ak directoire waaye léegi nag daf ci amul droit Sénégal kaas nañu ba sonn ni lu tax le président Macky di war a mën a laaj troisième. candidature yoon nak may kaka. mu bet nak ñu bari président Macky Sall ni léegi man dématuma. waaye nak kaddu gàngee nag yéen et il faut que ñu souligner ben affaire pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays ñu gis ben coalition bu am haute durée de vie bu tollu ni. mu que d'un main de maître mu wat leen boom bi ci boy boy ba ndax ba dolo nak mom la jox lepp mu jël lepp mu ni len tan len ñu ni ko jox nañ la suñu cadeau bañ ko ne jox nañ la suñu cadeau mu tan l'ancien Moussa Niasse mu ni képp ku bëgg demal képp ku bëgg dem na waxtaan nañu suñu biir waxtaan nañu seen biir ndax duma ni suñu biir ndax kenn laaju ma sama avis ndax amaana xëy na man sax bëggoon naa nekk candidat wala bëggoon naa Thérèse nekk candidat wala Victorine nit ñi waxtaan delloo ko kàddu